kaleel ma foofu benn son bu am rythme benn son bu am rythme ok. oui ici à l'hôtel balcon nuyu waat naa leen yéen ñëpp bu baax a baax mais DJ ok su baaxee. ayca. ku ne ki lay jooy joowaa ku bëgg ne joowaa. ana Fatou Fatou. know God. Orange la kan moo jëlagum ndam li kii la kii la kan moo gagné kan kii kii moo gagné ah no non attends kii am na ku ko mën acca acca kii ka ko DJ. wakila kan mo gañe ki kan mo gañe ki avo kan mo gañe ki ki mo gañe kan mo gañe ki mo gañe no attends kaay ki mo gak kan kamu ci topp kii moo ci topp non attends léegi yéen ñaar acca kaay leen ñu

Ouais, ça c'est... A gagné où Qui l'a gagné là Comme le qui A qui Allez, en finale, Lomniar, Acha, Nikhol, Kan Allez, les deux, DJ, allez, Subakhe, musique. mujjee laa mu fekk beneen cas bu gën a bu gën gën garaaw benn bébé moo judd judduwaale extrait de naissance <laughs> booy li ma la reen ngaa bi su ngeen ko fekkee wut bu leen weddi sama copain sama copain bi bi ma ko seedi jee bay dëpp daal di jaar fi ñuy kiiwee opéré fekk fi copain bi gel bi dafa ëmb ndeysaan ki ko kii daal di koy bañ daal di bañ na du moom nga xamante ni bi liir bi juddoo dañoo waroon def test xool ba xam papa ji moom la wala du moom mais liir bi moo feeñal parce que dafa judduwaale extrait de naissance turu waa ji nekk ci extrait bi mu doon papaam ak léppam nga xamante ni foofu amul dara lu mu fay weddi waaye dama faa dajeeg ñaari copain yu xeex xeex bu soof copain bi dafa dugg si dajeeg beneen copain am copain bi daan na ko foo jóge ci hôpital bi mu ne ko waaw mu ne ko xanaa da ngaa feebar mu ne ko waa ku jóge ci hôpital rek da ngaa feebar xanaa kon ku jóge ci almer da ngaa dee loolu la ko wax quoi mais ba léegi nii may ñëw dem Dakar di ñibbisi bi may jóge talent d'or yam ci soog boo xamante ni ay tiit yu garaaw laa fa gis ay tiit yu amul fenn soog bi dafa am benn doodaan bu ñu defar foofu doodaanu 15 astafurla doodaanu 5 mètres oto bi da cee dal roulé 63 fois daanu ci suuf pënay féete kaw pënay féete kaw nga gis fa ay tiit yu extraordinaire benn waay ndeysaan dafa tiit biir bi moo toj affaire oh boy bu ne nii quoi parce que danga may weddi affaire yi génn mu leen ci biir bi mu naan alhamdulilah ba ma samay gàllaaj mais boobu eh bu leen reetaan boobu garaawut de xam nga ban moo garaaw màggetu mbër mi moom dafa jaawale capp boo xamante ni gel bi ci nekk am miis la mais capp 3 mètres la nii mu jaawale ko ak beneen sol ko capp bi def nii mu naan ay waay jàmbaar yàqu na mais eh, kooku tiitu de xam nga kan moo tiit maire bi maire bi dafa dem wekki moteur oto bi yanu ko daan alhamdulilah ba ma jotee sama valise maa ngi ziar ñëpp. maître Babou li ko neex moo ñu tudde ko taalu bi sëñ loolu la ñuy dunde ba ñëw njaareem dem dëkk Touba. di ñaan yàlla sunu borom li ñu fi indi muy liggéeyal taalu eh, Serigne Touba yàlla sunu borom bi ci jàppale suñu taxawaay fii tey foog naa ni lu war a am la ndax xale bi nga xam ni hôtel Balkan di cham cham nekkul sama client rek yem ci cham sama doom la hmm? te bi ñu ñëwee njaareem dañ koo ràññee comme xale yi koo xam ni bëgg na liggéeyal dëkkam mais surtout lu ci am solo mooy xale bi dafa am ambition xam nga dañuy wax lu bare bari ni fii njaareem lu ñu fi manqué mooy ay bërëb yoo xam ni euh, jumtukaay yi war na bari ci wàllu tourisme

ci anamu ay lek ci anamu ay tëdd même pour mën a dox sa soxla da nga ko war a mën a def daal excellente condition touba day jëm kanam xale donc bu fiy yëngatu ku ñu war a encourager la parce que liggéeyam liggéey day liggéey bu am solo bu yàlla di ful ci tànk yoy la cham yem ci tànk yoy la nekk mais mi ngi continuer di liggéey

naaw naa seen xam-xam kii taxaw ci sama kanam nii maa ngi ko tuddee Cheikh Baye Fall am na euh, magasin ay bureau yu muy liggéeyee fii ci Mbacké mais mën naa wax ni Sénégal amul kenn ku ko mën ci wàllu xarala yi lépp lu ajoo ci ay affaire portable ay affaire téléphonie ay affaire internet

boo ni moom ci ay coobare boppam alors le jóge yor business boppam wolu boppam wolu xam-xamam am volonté matin midi soir mi ngi ci liggéey bi je crois que di koo xam ni mu ngi dul encouragé bari na ci ay morom du moom rek laa àndal ànd na sama ben xaritu benn bakkan ak famille am ni sori nañ mi ngi tudd Malick Malick Mbaye euh, ku ko xamul tam dégg nga turam enseignant la mhm. mu bu xarañ ci walu syndicat syndicat bi du self voilà nous, moy diriger syndicat self fii ci région de Diourbel bi c'est quelqu'un de très dynamique surtout le am solo c'est que li muy liggéey ci walu social waaw muy élève muy parent d'élève ku sa bët xonk soo demee seeti malik malik dana ko saafara loolu laa mën a tuddee quelqu'un qui est au service de son peuple kooku tam ku ñu war a encourager alors donc Malick ñëpp xam nañ ko mi ngi jëriñ askan wi ci wàllu éducation am na ci xam-xam bi xarañ na ci ñëpp naw nañ ko ci à commencer

ñoo xam ni dañoo seqoo ci wàllu àddina alors soxna si Diop mi ngi fii ak njabootam sama ñees yi indi naa leen ñoo ànd ñoom ñëpp itam que feetu xale yi la moo tax ñu daal di ànd ak man pour ñëw duma ma fàtte ni sama secrétaire mi ngi fi madame Fam madame Fall mi fi.

kon nak ñun mënuñu luddul souhaiter une bonne fête à toute la jeunesse ndax remarqué nañ ni li ko bi commencé ba légui day yokk at mu nekk ak personnelam. Duma mëna euh mën a euh, euh, ñàkk féliciter personnel bi jàppale cham parce que soy liggéey am équipe sey bir fu tollu xamal ni sa équipe dugal nañ ci sen loxo kon nag caam je te félicite ma ngi lay encore

yalla sunu borom bi dara teewul def ak moomu 2019 gënal ñu ci at yi yalla defal ñu ci jamm yalla defal ñu ci sutura defal suñu mbir teg ñu ci yoonu lislaam teg ñu ci yoonu yàlla te jëmale yëpp kanam kon maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di féliciter les animateurs les DJ effectivement def ngeen soirée démb sonn ngeen teewul tey itam ñëw ngeen li tax ngeen def ko rek mooy bëggal xale yi pour y aller yàlla fay te yal na yàlla jubale yëpp kanam jërëjëf les journalistes ñoom ñëpp Malik si tu veux ajouter un mot pour compléter non merci euh, maître Babou je pense que wax nga lépp euh, fête bi c'est une fête grandiose mais yaakaar naa ni dangeen ko def à l'image de son parrain pour bëgg lu baax la ku bëgg dëkk bi la ku bëgg jeunesse bi la li muy wax ci ñun ci moom la nekk parce que day encourager nit man li ma booleeg moom dama gis may def mu ni ma mu encourager ma ba ànd ak man lépp lu muy def di ma ci boole di ma ci associé kon je pense que moom lañ war a moom lañ war a rendre hommage moom lañ war a sant moom lañ war a gërëm di taalibe nag di jullit akkan di liggéeykat di ku baax ku bëgg réewam jur Mbàkke gi ma dëkk képp koo gis day wax social rek mais moom a gën a travail ci social dafay gis ay cas yoo xam ni dañu am problème ak la justice di am problème mu jël avocat moom mu porté volontaire gratuitement assister ñooñu jàppale leen ba yàlla def ci ñoom jàmm je crois que loolu bokkul volet social la boo xam ni wax dëgg yàlla moom mii moom moo ñu ci jiitu dafa mel ni sax boobu jikko moo tax ñu ànd ak moom muy dimbali doomu aadama donc nañ ko ñaanal li mu fi def bu déwénee mu man lu fi ëpp wax dëgg yàlla ba ba ba ba def ko ci jàppalee ko Thiam ñi ngi nag di félicité di associé ci félicitation yi mu def Thiam ñu ngi ci ànd parce que lii ku ko dajale wax dëgg yàlla xaj nag yàgg nga ko tàmbali te ba nga ko tàmbalee ba léegi yaa ngi ciy gis njëriñ kon ñuy félicité Thiam di ko encouragé di sant yàlla ñu yàlla tegal mu am année deux mille dix neuf année bu gën ci année yi mu ànd ak réussite ànd ak prospérité ànd ak santé ñu ngi leen di sant. on s'excuse un peu parce que voilà a am dara Je suis le parrain de mm. ah, Qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui? Eh bien ma présence précisément je viens soutenir euh, un digne fils du terroir à l'occurrence le gérant de l'hôtel Balkan Thiam j'ai vu que c'est un jeune qui est entreprenant qui veut faire de bonnes choses pour notre région parce que nous le constatons toujours. Tous d'ailleurs, le constat il est unanime. Euh, notre région manque d'infrastructures hein, en matière de tourisme, d'infrastructures culturelles et même des lieux d'hébergement. Alors, et voilà un jeune qui s'est investi dans ce créneau et qui fait quand même de gros efforts. Naturellement, il en est à ses débuts. Il faut donc l'encourager. Alors euh, c'est la raison pour laquelle euh, je me suis déplacé. Je suis en même temps, il est en même temps un fils et je suis en même temps leur avocat. Et lorsqu'il m'a sollicité pour être le parrain de l'événement, je l'ai accepté de tout cœur. Je crois que ce sont des actions positives de nature à faire progresser notre région. C'est pourquoi je suis là. C'est une bonne chose. C'est la fête de la jeunesse. C'est la fête des enfants. Tout le monde sait que de 24, ce que ça représente pour les enfants, De 25, Jusqu'au 31, c'est la fête des enfants, c'est la fête de la jeunesse. Alors donc, il faut comprendre que euh, je me suis déplacé pour ça et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec des amis, je suis venu avec une forte délégation, avec des amis qui me sont très proches, comme j'ai cité Malik Mbaye et sa famille et d'autres personnes. C'est dit donc qu'il fallait faire cela, marquer de ma présence l'événement et j'ai tenu à le faire. Ça fait vivre la, région et euh, ça ne peut, que servir d'encouragement souffre de tous les maux. Et maintenant, comment, en tant qu'avocat, comment comptez-vous aider les à sortir de cette c'est l'investissement des, fils de Durbel. Non, non, il n'y a pas de miracle. Hein. Mhm. Il ne faut absolument rien attendre de l'État. Hein. Bon, j'avais appris il n'y a pas très longtemps que euh, l'État avait entrepris la réfection de l'hôtel Baobab. Mhm. Hmm? L'hôtel Baobab, en son temps, hein. mhm. j'étais jeune avocat dans les années 80. Je euh, J'ai descendu ici hôtel qui était en ce moment-là très bien tenu, peut-être vous avez entendu parler, par un tuap qui s'appelait Moquet, je crois qu'il est aujourd'hui décédé. En son temps, c'était un hôtel vraiment de casse. Hein. Depuis lors, euh, il a été laissé à l'abandon. Apparemment, on est en train de le reconstruire, mais il faudra tout faire pour que la gestion de cette recette puisse euh, euh, échouer à, un fils de Durbel. C'est avec ces actions pareilles qu'on peut promouvoir. Parce que euh, Durbel n'a pas d'infrastructure. Hein. vous descendez ici, euh, vous ne serez pas dans de bonnes conditions. Donc, euh, à voir un jeune alors, qui se lance dans ce créneau, je crois qu'il est aidé par un ami suisse. Hein. je crois que c'est un Suisse qui est propriétaire. Néanmoins, euh, a fait des efforts. il faut l'épauler. Vous avez parlé également du retour à Djurbel ou bien euh, euh, à, Touba. Qu'est-ce mm, qui explique ce retour-là Eh bien, Nibina, hein, man Nibina. Hein. Pourquoi, pourquoi ce retour <laughs> Ah non, non. Alors, euh, je crois qu'après avoir fait 35 ans de bar comme avocat, alors à 68 ans, il faut savoir se rapprocher plus encore du bon Dieu. Et je me sens mieux à Touba, plus qu'ailleurs. Donc euh, j'ai fermé ma maison à Dakar. Je suis rentré définitivement à Touba. Cela ne veut pas dire que je ne retourne pas à Dakar parce que j'y vais pour les audiences, mais Nibissina là. Alors euh, ça aussi, je pense qu'il faut savoir euh, couronner une carrière. À 68 ans, je crois que je n'ai plus rien à prouver ni rien à démontrer, mais rester et peut-être soutenir et Priez encore Dieu, davantage Dieu, pour avoir cette sagesse que tout le monde cherche. Voilà. Merci, moi qui vous remercie.